asalaamaaleykum dal daleen ak jaam mbokk internet yi di safo di seetaan Buzz M TV Ousmane Sonko tey jii nag si àjjuma ji yemoo ko ñetti fan si weeru mars dafa waroon a julli jee fële ne moo di Kaolack na ñaseen moom Ousmane Sonko waroon faa jullee àjjuma tey jii nii waaye nag kilifa gii di kilifa xalew na ñaseen di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass dafa jël dogal boo xam ne daal dafa tere kii di Ousmane Sonko jullee si biir jumaay Léona Niassène tey jii nii li ko waral dafa bañ maanaam ak pëccëxoo am fa sa biir jumaa ja Sonko kon nag boobee la nga xam ne nag moom la waroon ajuma tey du mën a am moom Ousmane Sonko du mën a jullee jumaay Léona Niassène ndax dañ ko fa interdit parce que nag cause bi mooy bañ ak jaxasoo ndax kat gis nañ ne Ousmane Sonko moom bu mu di dem muy juma wala rek maanaam nit ñi moom dañ fay bari loolu lool lool dar ko topp ko loolu nag di may suñu borom.